mbokk internet yi dal leen ak jàmm Ousmane Tounkara nekk nag activiste ak euh, façon bi nga xamante ni noonu la koy daal di defee kenn dootu ko présenté ndax nekk na koo xamante ni nag am na regard bu yaatoo yaatu nag ci réew mi ni ñuy daal di doxalee rawatina nag suñu njiit yi ni nga xamante ni nag noonu la ñu daal di yoree réew mi moom mi nga xamante ni nag xamee nañ ko ci euh, Pastef ndax li muy yàgg di défendre kii di Ousmane Sonko loolee nag ci ni mu nekk opposant ba ci ñu ngi koy tuddee ci mbirum viol bi nga xam xamante ni Adji Sarr moo ko ci daal di nag euh, topp moom mi nga xamante ni sax euh, moom mooy Ousmane Tounkara euh, dañ ko daal di nag ni ki ayu bés yi dañu daal di génn ginnaaw benn plainte boo xamante ni nag mandat d'arrêt sax international lañ ko daal di duppee bu Sénégal daal di koy porter plainte ci ab poste boo xam ne defoon na ko ndax moom nag ci nu muy doxalee wàllum activisme mooy ay vidéo yu muy daal di def xas saaga ŋàññ ni nga xamante percevoir yenn ci doxalinu réew mi ba noppi daal di koy posté nag ci page am waaye nag ci période manifestation yi nga xam ne moom nañu daal di nemmeeku moom mi Tounkara dafa daal di xamle a wàcc dem dugg ci biir këru ñi nga xam ne ñooy autorité apériste yi taal kër yi te bu ñu bañ dara loolee nag nekk benn appel au terrorisme boo xamante ni nag état bu Sénégal dañoo jàpp ne nag moom Tounkara warul mën a waxee noonu rawatina nag muy woote ci ay jeunes ñu def wàllum nag li ñuy terrorisme tourisme ci euh, contexte bi nga xamante ni moom la nekk nga xam ne dëkk yu bëri yi nga xam ne dañu daal di wër nag ñu ngi xeex euh, terroriste yi moom mi nga xam ne moom mooy Tunkara nag ci a euh, mandat d'arrêt international bu ñu ko daal di lancé nag plainte bu état bu Sénégal tax sax ñu daal di nag koy teg loxo foofu ci diwaanu États-Unis ci ay bés ngi mu daal di nekk ci loxo yi service immigration yi nga xamante ni nag ñu ngi doon wóomandaat ba xam est-ce que duñu ko expulsé maanaam rapatrier ko indi fii si Sénégal Sénégal ngir yoon mën a def liggéeyam ci plainte boobu wala boog ñu dàqee ko ci États-Unis boobu nga xamante ni nag apologie au terrorisme ko fay xeex bu baax a baax waaye nag mbir mi fu mu toll nii acté nañ ko ndax dañu ko doon xuma daan dong waaye fu mu toll nii nag acté nañ ko ndax nag dinañu ko daal di nag expulsé loolee mooy condamnation bi nga xamante ni moom Tunkara nag daal dina koy jot ginnaaw soutien yu bëri yoo xam ne mu ngi koy jot nag ci ñenn ñi ci seen i page ak ci réseaux sociaux yi waaye nag démb gis nañ nag ñu bëri nag ñoo xamante ni ah, dañoo jóg nag daal di koy nag xeexal dem ba a ah, buntu consulat bu euh, Sénégal foofu ci diwaanu États-Unis ah, di daal di manifester ci ay pancarte ak ay yoo xam ne dañ ko daal di nag defal def ci photo Tunkara xam le ni nag ni liberté d'expression lu ñu bëgg a salfaañi foofu ci diwaanu États-Unis loolee nag moom mi nga xamante ni moom mooy euh, Tunkara nag fu mu toll nii mi ngi ci ay nag euh, mbir yoo xamante ni dina lëndëm lool ci moom ndax bu ñu ko expulsé ndax nag li tax sax ñu wax ko expulsé mooy nii rek moom mi amul nag li nga xamante mooy nationalité di green card ba amu ko lu dul nag benn certificat de séjour képp la daal di am moo tax nag ngir eh, réewum Sénégal mën a jote ci moom jàpp mandat d'arrêt nag dafay doon lu yomb jàppaleen nag fu mu toll nii nag daan nañ koy condamné ci ab expulsion boo xam ne dinañ ko acté te loolee du yàgg ci dara